xam nga mën na nekk. mais mën na bañ a nekk bu fekkee ne changement yi ma dégg ñu wax ko. mooy euh, faire en sorte que le conseil supérieur de la magistrature. président de la République dootu ko dootu ko dootu ko. dootu jiite. dafa xaajale magistrat yi dafa xaajale politique yi muy benn. d'ailleurs benn magistrat bu mag wax na ci bërkaat yi démb démb kàjji te tuutiwul. muy benn bi ci des mooy donner plus de pouvoir au premier ministre muy ñaar li ci ak supprimer le conseil économique et social et euh, le haut conseil ma commencé foofu ñaar yooyu ñoom ñaar ñëpp ay organisme consultatif la ñu li ma leen di wax ne boo paree da ngeen koy def de da ngeen di le le haut conseil teg ko ngeen tiire le conseil économique teg ko ngeen xel seen attribution seen mission mission yi benn la mission yi nekk ci conseil économique et social moo nekk fii parce que du leneen du lu conseil le gouvernement en matière de développement économique et social du dëgg mais biir conseil économique social dafa am benn loo xam ne li prérogative boo xam ne bi au conseil amu ko mooy ce qu'on appelle les lois de programmation mooy loi boo xam ne bi obligatoirement à la kulli alin comme réglement intérieur assemblée à la kulli alin il faut ñu jël loi bi organique bi yóbbu ko conseil conseil mu seet ko balaa ñu koy promulguer si kenn du ko promulguer loi de programmation noonu lay mel xam nga kañ lañ ko soxla woon sur le PSE parce que dafay nekk loi boo xam ne bi day traverser ay régime moo tax gis nga PSE soriwul mais lem nañ ko de gars yi lem nañ ko yeew nañ ko ci buum ñu ngi ko jëmee archive waaw di xaar projet mais warul député yi warul député yi de député yi dañ ko war a téye parce que député yi ci la ñuy doxee moo doon seen feuille ba tey ngoonte boon lañ leen doon bañ loo ak di ko nanguloo war nañu seet par exemple ñoom la ñuy voté woon te ñu voté leen ko ndax loolu war nañu seet ndegam li ñuy voté la ànd naag la li àndu léegi c'est important donc loi de programmation boobu moo tax conseil économique social donc mën nañu génne la haut conseil territorial amul njariñ bu fekkee ne c'est la prise en compte de collectivités territoriales mu ngi ci développement par la base mu ngi foofu donc loolu pour man pour man Doudou Wade laa wax de te yàgg naa ko wax aussi du tey laa ko wax maintenant le conseil économique social dafa nekk organe boo xam ne bii ragal naa ne booy compter réewu Nations Unies yëpp am nañ ko. ragal naa ko wóoru wóoruma nag mais bu ñu dee lu ñu mënti doon mën nga jàpp ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi am nañ ko conseil aux Nations Unies sax am na conseil économique social parce que lu muy jariñ mooy xool économie bi ak pàcc bu nekk ci ci réew mi ñu def ci ay études ak ay rapport jox ko gouvernement ne ko lii baaxul lii moo baax maanaam scanner la scanner moom la wala bokk machine yooyu nga xam ne moom la ñuy seetee xamul nu ñu ko tuddee yi nga xam ne profondément il faut ngeen ñu xool ko rajo la. suñu gouvernement kii rek lañ koy utiliser casé benn genre. kii politique rek lañ koy mais malheureusement. njëriñam je je ne dis pas rek. il faut nga xam nag rapport yi am yan rapport bu fekkee ne mësuloo dem foofu jël benn rapport liir ko wala gisoo rapport au conseil économique social le conseil économique social se prononce sur plusieurs choses. dañuy déglu ku nekk am nañ droit déglu ku nekk donc loolu jàpp naa loolu benn bi ci des xam nga constitution bi li ñuy ut pour donner de pris de pouvoir au premier ministre xam nga plus de pouvoir mooy mënul ëpp est-ce que d'accord ngeen ne warul ëppale pouvoir président de la république est-ce que d'accord nga ci loolu benn parce que moo koy choisir moom te mënu ko ëpp pouvoir. Ah, xam nga régime présidentiel lañu nekk tamit mënuñoo suñu régime bi ñu nekk. Ah. depuis belle lurette sax ah. laa mën a wax. dañ naan régime présidentiel fort. waaw bu fekkee ni euh, deux mille euh, deux mille douze deux mille onze nekkoon sax assemblée nationale ci mbirum ticket présidentiel bañ doon wax ngeen waroon ko défendre ngeen mujj dellu ginnaaw waaye la la la la taxoon la ko taxoon a jóg mooy comme tey mën a am au-delà du président keneen ku mu mën a dandal koo xamee ni. waxuma ne day am prérogative yëpp comme président mais dina am lu bari ci pouvoir président yoo xam ne mën nañ ko ko délégué. ko oui oui mais comme mën na ko bañ a am est-ce que tu connais le vice-président des nations des États-Unis waaw non loolu kay ñoom ah, ñëpp ah, xam nañu ni ah bu ah, noonu. am na am na doole boo xamee ne. day day am variante. waa xam nga day am variante c'est-à-dire que li muy empêcher d'abord mooy en cas de décès ou de démission. ñu am problème de continuité sur les programmes que nous avons mis en place parce que les programmes ñoom ñoo ko defandoo en place moo tax euh, euh, li amoon mooy le vice-président de la République mu ngi woon ci constitution bi au en 2011 attention mu ngi ci woon mais il était nommé dañu ne le président peut nommer nomination boobu nag la ñu bëgg la ñu bëggoon dindi mu nekk quelque chose de plus légitime ñu élire ko en même temps que le président dans un ticket présidentiel comme au, comme comme waaw comme comme le système présidentiel fort hmm. bien alors maintenant maa ngi woon ci dama détourné dinaa ci dinaa ci. ci les pouvoirs du premier ministre. les pouvoirs du benn la rek. donc premier président de la République c'est un élu au suffrage universel direct. Mmh. comme les députés le premier ministre il est nommé. par le président et président amul obligation comme dans le régime parlementaire à le choisir dans le camp de de de de de, de l'Assemblée il peut ne pas sortir de l'Assemblée parce que loolu De Gaulle moo dindi pour amener un président boo xam ne du dépendre ci politique yi avoir un président qui ne dépend pas de politique loolu mooy di Georges Pompidou ba ci euh, la l'avant l'avant dernier euh, premier ministre là c'est la même chose bokkuñu ci parti bokkuñu dara waaw ah, loolu c'était pour pour pour pour dindi le lien bi nga xam ne dañu yeew président de la ci politique mu dépendre trop ci politique donc premier ministre mais constitution yi moo wax ne le président de la république man na summi ay pouvoiram yenn yi jox ko premier ministre walla ministre ci sunu constitution en un certain moment ci Senghor Senghor daan na jël ay décret portant intérim du président de la République bu nekk en voyage et c'était en particulier Madi Soko parce que boobu temps suñu constitution prémètre ko mais constitution prémètre na que moom mu summee ko ay yëfam jox ko premier ministre mais jarul attends attends attends mais jarul jarul modifier totalement la constitution il faut l'appliquer la constitution parce que constitution bi aussi wax na président en la attention am na pouvoir yoo am ne. yi mënoo ko joxe loolu leer na. Mhm. donc moi je gisuma luñ lu luñ fii fiy changé maintenant sur sur sur sur la révision des des des des autres institutions le conseil supérieur de la magistrature et la justice ça c'est un problème à part qui demande qui demande benn fora. dafa mhm. demander loolu. alors maintenant mais, mais, sur, l'assemblée j'en termine. sur l' assemblée bu ñu bëggee assemblée bi dox assemblée bi du dox bu ñu dissoudre assemblée bi nga wax nii mën nañ ko dissoudre pas au mois d' octobre pas avant le mois d' d' octobre waaw. bu ñu ko dissoudre aussi dañuy dem élection dans les quatre vingt dix jours mm-hmm. on aura les mêmes parce que c' est le même scrutin la même forme la même loi électorale euh, système majoritaire système proportionnel. kan mooy investir les parti politiques amuñu ay circonscription électorale yi ñuy war a créer pour que circonscription électorale bu nekk tombe ak benn député ay fukki nit di ko xëccoo àgguñu foofu ngoonte boon ça produira les même résultat parce que loolu mënoon nañ ko am mais assemblée bi ñu jógee ak opposition bi fi nekk bi fi jóge nii ñoo xamul woon seen liggéey ak lu ñu war a def xam nga opposition bi ñoo fi toog ba ñu xuloo parrainage te yore loi sur le parrainage te loi bi ñu doon xuloo ñu imposé leen ko ñoom ñoo ko adopté fu ñu nekkoon ah damay laaj fu ndax xamoon nañ ko. Hmm. waaw mais bu fekkee ne dañ leen jox loi ñu jàng ko ba te xamuñu dessous yi c'est la peine ñu fay ñëw dañ bàyyi moo tax parfois ñuy poser la question hmm. député yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk assemblée hmm. seen taxawaay bi nga xamante ne ñoo ngi koy am assemblée nationale mais taxawaay bi taxawaay bi ça dépend taxawaay ban ak ban ak ban taxawaay dafa wuute. Hmm. am na ay député dañuy taxaw. si liggéey bien sûr bien sûr. taxawaay politique la rek quoi à chaque fois parce que ñoom. mais li li li li li ñi leen fa yóbbu. du du du du lañ ko daan wooyee sax a jamono. li leen fa yóbbu. du askan bi nga xam ne moo leen fa tànn. waaye ñi nga xam ne ñoom la ñuy représenté politiquement. Ah, nga ne nga ne li leen fa yóbbu ñi ci ëpp ci ñi wax bi il faut nga changer ko. ah ñi fa yóbbu mooy askan wi. Ah, ndax comme ni nga ne askan bi leen tànn. ñu ne jabar ji ñëw na ci kër gi mais li ko fi indi mooy ki ko maye mais dañ ko ñaan si non il faut que il faut xam nga du du bu mais président même bu fekkee am na ku ko ku ko ñaan si. ma ne gis euh, euh, président nit fi ngay dem fu ne. am na loo xamante ne nii sa rôle la mooy li nga xam ne loolu nga war a loolu lañ la jox pour que nga doxal ko. bu fekkee ne liñ la jox pour nga doxal ko. Euh, méngoowul ak li nga xam ne nii mooy mé mé. répercussions yi sax li ñuy xaar ci yow ah. mais dafay xaw a aussi tamit ah, compliqué parce que loolu looloo tax looloo tax méngoowul ak sénégalais yu bëgg moo tax nga bëgg a wax waaw c'est ça loolu tax sénégalais yu bëri dama lay ba léegi comprendre ñu ñi ci ëpp mënuñoo comprendre liggéeyu député ci assemblée nationale ci à chaque fois bu ñu leen waxee que ne mooy euh, ndawal ñoom ñoo fa teewal askan wi te malheureusement li ñuy def yëpp te ci gis na yow président yàgg nañ fee gis ay député yuy taxaw ne lu président wax loolu laa wax gis yàgg nañ fee gis ay député yu taxaw ne lu sama chef de partie wax man loolu laa wax oubliant askan bi nga xam ne nii ñoom lañ fa nekkal ñoom la ñu war a jéem a euh, jàppale ba li nga xam ne nii mooy seeni dund nekk loo xamante ne nii dafay dafay dafay dafay dafay oyof wala sax dafay baax donc gis nañ yàgg nañ fay gis wax dëgg fa yàlla député yi di liggéey liggéey boo xamante ne méngoowul dara dara dara dara dara ak li leen fa askan wi di xaare man bu fekkee ne da nga bëgg wax ne seen liggéey méngoowul du tout ak leen askan wi xaale te man ma bokk ci askan wi te man bokk bokkuñu position askan wi du yow du man mais nangu loolu xam nga tant que créé wuñu li mën a wax nii ay député yoo xam ne dañuy jóge ci benn circonscription électorale nekk député de la nation mais circonscription ba ñoo lay tànnal seen bopp ci A B C Ndeye Ndiaye candidat la Ablaye Sow Marème na Ndiaga géey ñu teg. ñoom Abdourahmane ñu tànn ko la neex ak seeni photo booba dañuy tànn directement benn nit mais fii dañuy élire liste liste mooy pañe yi ñuy teg fële ci yi wala ci Korité bi def ci lu nekk daal di koy yeew téye ne pañe bi lii lay jar gis nga boîte biscuit bi nekk ci biir xamoo date de péremption bi àgg na wala àggul xam nga il faut ñu nangu la réalité dañuy parti de là maintenant député yi am na lu seen rôle xam nga seen rôle lan la voter la loi contrôler le gouvernement évaluer les politiques publiques évaluation des politiques depuis 2016 defuñu ci dara zéro contrôle le gouvernement bi c'est sept fois dans le mois defuñu ko mu ñaar loi yi ñu ngi koy voté loi yi nag fan lañ koy voté mais boo liggéey loi yi nekk fii ci ci projet bi la ñuy de waaw mais nag ngeen mën a waxee député Pastef ne ko li nekk ci sa projet bi yow te nga xeex ba ñu jox la ko nga def ci li nga ci def ba ñu mu jar ñu rey ay nit yu bëri dee ñu bàlleen yow doo ko woote. mais président. nan la ñuy soppee. Ah. justement député est-ce que d'accord nañ ci loolu. loolu loolu d'accord nañ ci loolu. am na loo xamante ne ni interpellé dañ day dalay interpeller personnellement tamit de. Ah, parce que dafay dafay dafay dafay laaj sa responsabilité face. à situation mais d'accord waaw donc. tey tey tey on a fait les élections. waaw les élections législatives mais législative présidentielle législative présidentielle pare Abdoulaye wootewul c'est sa responsabilité te pourtant ñëw na c'est une responsabilité je vais te faire je vais te faire une une une première je ne suis pas je n'ai pas suivi la campagne sauf ñi nga xam ne ñëw nañu seet si ma ma waxtaan ak ñoom parce que j'ai reçu des candidats nag chez moi waxtaan mais waxtaanee réew mi naka lañ ko gisee ak yan position lañu war a am ci campagne bi ainsi loolu suite def naa ko. mais wote jiwu ma mais parce que gisuma lu tax gisuma lu ma jaral ma jël ci ñi ma gis ne man dinaa voter pour diw wala pour diw pour diw. waaw ah, benn candidat je ne sais moo la doyul wala seeni i. seen programme moom nga gisul. yow yow yow yow gis yow liir nga programme gis nga kenn ku ci wax programme ci campagne bi yëpp. ah ñi ma si jot seen i seen projet de programme laa gis si ñoom. ji ma fi dalal yëpp le programme il est bu il peut être oral il peut être oral le programme du prophète quand il le livrait était un programme oral déglu dëgg. Uh-huh. programme bi am na mais programme bi Pastef par exemple deux cent soixante-dix pages la. Uh-huh. mais gis naa ci ne par exemple on par du ministère de la femme on ne parle pas du ministre de la femme am na yoo xam ne gis naa ko ci biir ak yu mais loolu. comme am na kenn ko xam ne moo leen ko dénk te moo ko war dinaa ko xaar dama léegal benn affaire bu gàtt pour ci ci député yi am na député yoo xam ne yi ñu ngi liggéey am na ñu liggéeyul am na ñoo xam ne xamuñu sax lu xew xamuñu ne tey la ajuma mais c'est comme ça loolu moo am c'est parce que. si ah. insister sur les députés. qu'est-ce qu'il faut pour soppi doxalinu député ci assemblée nationale législateur nga yàgg nga. ci ci ci assemblée jàll plusieurs euh, législatures mais député yañ daan xam ci jamonoy j'aime bien le citer jamonoy Puritain Fall nga nekkoon fa ak ñeneen ak ñeneen ak député yi ma gis tey ñu nekk ci assemblée nationale comme yàlla ak yàlla ni ñu ko mën a waxee jamono yi ba ngeen di nekk mu doon ay discussion yoo xam ni nit ñi dañuy toog seen kër di seetaan seen télévision di gis assemblée nationale di ci gis seen bopp ak li xew jamono ji du benn lan moo mën a soppi loolu ndax dafa jar soppi loi ba comme ni nga wax ba ci ni ñuy tànnee député ñu bañ ko tànnee ci list tànnee ko ci kii mën nañu représenter ci circonscription électorale wala yu ni mel ak lan moo mën a indi ba tey assemblée nationale ñu gën ko jox fulla bi mu bu mu war a am comme ni mu amee ci yeneen i réew. li ma jàpp ci ci li ma xam.